Euh, le président de la République Bassirou Diomaye Faye est actuellement à Paris euh, mu war a jël euh, part à une euh, conférence internationale sur du du du Gavi sur le sur le vaccin mu war a entretenir autour d'un déjeuner avec le président français Emmanuel Macron. Mm-hmm. mu mel ni dinañu tiji beneen phase dans la diplomatie. Euh, par l'actuel régime mais avant boobu tamit mu mel ni la la la la la la diplomatie du bon voisinage aussi mhm. euh, moom Bassirou Diomaye bi mu ñëwee daf ko renforcer mhm. et sa produit des des des des résultats il a démarré par la Mauritanie le, le la Gambie euh, le Mali la Guinée-Bissau mhm. euh, et cetera mu mel ni moom dafa gën a renforcer aussi cette diplomatie du bon voisinage qui fait qu'aujourd'hui euh, problème bu amee Casamance si a pas des échappés euh, des échappés rebelles ce qui se passe à Médina Gounass les frontières sont verrouillées on aide le Sénégal a trouver une solution non euh, li li li li doon wax rek français langue de précision et de nuance li nga wax renforcer donc bu dee defee renforcer ça veut dire que defoon nañ l' essentiel et à mon avis ki def l' essentiel mooy président Macky Sall parce que boo xoolee ci géopolitique dañuy wax Sénégal dans les années quatre vingt quatre vingt dix moom Momar Kumba Diop moo ko bind le Sénégal et ses voisins dafa nekkoon benn ceinture de feu c'est-à-dire que la doon tàkk boo xoolee amoon nañ fédération ak Mali mu tas Gambie Fodé Kaba 1 Fodé Kaba 2 armée intervenir na fa Guinée-Bissau on a fait la guerre opération Gabou Mauritanie on a failli avoir un conflit et puis nga xool léegi fi Sénégal toll damay wax diplomatique Macky Sall c'est deux choses c'est un voyage à Sotchi et deux ponts le pont de Farafenni bu doon dañuy retenir politique diplomatique Sénégal pendant les cinquante ans la chose la plus importante mooy le pont de Farafenni le pont sur le fleuve Gambie qui a rapproché la Casamance et Casamance plus muy rapproché wu plus l'idée indépendantiste séparatiste dépérit évidemment l'armée a fait le travail des trucs comme ça mais l'armée apporte une solution militaire mais la véritable solution elle est dafa avait pour apporter une mauvaise réponse à une vraie question et le Sénégal a apporté la vraie réponse à la vraie question le désenclavement le pont de Farafenni Mauritanie 89 on a failli faire une guerre loolu affaire science politique la ñuy wax ñaari dëkk yuy def business duñ guerre ñaari dëkk yoo xam ne ñoo bokk am système démocratique duñ guerre loolu Macky Sall appliqué Mauritanie pétrole ak gaz bi nga doon wax yaa est-ce nga may mun a ñu wax affaire licence de pêche. ñun journaliste chaque fois chaque année dañu dégg way les pêcheurs gendarmes déggati nga ko. depuis 2018. dégg pétrole ba pétrole ak moo tax. parce que les enjeux du pétrole et du gaz tellement importants que yooyu ça devient de, de petits problèmes donc la Mauritanie est devenue notre grande alliée et c'est ça le génie politique de Macky Sall de dire que on a du pétrole et du gaz on se les partage alors que déggoon nañu fi ay candidats yu fi taxawoon 2019 taxaw Ndar di tëkku naar léegi boo xoolee c'est pourquoi dama wax man parce que opposition aussi c'est pas être nihiliste et moi j'ai salué que président Diomaye Faye njëkkee Mauritanie parce que loolu mooy avant-garde lan mooy avant-garde mooy l'économie le pétrole et le gaz business moo tax ñu am ak jàmm ak Mauritanie beneen bi li indi avant-garde mooy mu dem Gambie Gambie démocratie problème mu Casamance li ko garawlu mooy Yaya Jammeh ba Yaya Jammeh demee ba léegi depuis que Macky Sall a aidé les Gambiens à retrouver la démocratie da nga depuis que Macky Sall a aidé la Guinée-Bissau aussi en République démocratique da nga MFDC et c'est pourquoi damay wax euh, euh, l'armée du Sénégal a réduit le MFDC à sa plus simple expression parce que MFDC amatuñu zone de repli ni en Guinée-Bissau ni en Gambie yi l'armée du Sénégal n'a jamais été aussi forte loolu moo rek problème bi mais que le successeur de Macky la s'inscrivent dans cette dans cette lignée dans cette, dans cette lignée là c'est une excellente chose c'est non une bonne chose parce que en matière de politique diplomatique il y a plus de continuité que de rupture et c'est pourquoi man bi ma gisee à l'époque ñu ni way dañoo convoqué les diplomates affaires étrangères indi fa Pierre Sané indi fa 80 diplomates rappelés à Dakar indi fa qui doivent rentrer avant indi fa indi fa Pierre Sané indi fa Ngagne Diplôme Ngagne Demba Touré ñuy wax panafricanisme de gauche quand même comment tu peux convoquer des diplomates sénégalais aussi chevronnés tu mets devant Ngagne Demba Touré ban expertise la am et puis le régime passe mais le régime passe mais la peur extérieure du Sénégal doit demeurer depuis Senghor Senghor moo ko fixé heureusement que bi ñuy kii on a retrouvé le droit chemin dem Mauritanie pétrole gaz dem Gambie jóge fa dem Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire mooy le, le les deux mamelles de l'UEMOA mooy le Sénégal ak la Côte d'Ivoire mm-hmm. donc heureusement que président de la République toppul son premier ministre parce que comme li may wax son premier ministre moom li ko fasciné mooy les états du l'AES association alliance des états du Sahel du Sahel et c'est ça le grand paradoxe boo demee ci dëkk yooyu Burkina Mali ak Niger leur peuple ñoom dañoo bëgg mel ni Sénégal malien dañ lay wax dañoo bëgg mel ni Sénégal am élection normale am démocratie Burkina dañ lay wax loolu les élites ak le peuple dañoo bëgg mel ni Sénégal parce que Sénégal mooy seen modèle de référence alors que ñun suñu premier ministre moom dafa bëgg a mel ni mel ni ñooñu ça veut dire que dañu dafa bëgg. mais mais comment a mel ni ñooñu. ah moom di ma fa waxoon buy ko. dafay def une tournée politique de Pastef. Euh, dans les états oui, de de de de l'AES. lui il n'incarne pas la politique. Oui, de heureusement heureusement parce qu'il nous tire par le bas il nous rabaisse quand même le Sénégal a toujours été un phare. un flambeau et c'est pourquoi damay wax le panafricanisme la ñuy wax Burkina Mali ak Niger panafricanisme souverainisme damay wax que c'est de la forfaiture pour euh, ils ils veulent légitimer une forfaiture ça ils ont fait des coups d'État ils cherchent à légitimer leur forfaiture par de l'idéologie panafricanisme bu naree am ça ne peut être que démocratique et économique mais panafricanisme mënul nekk un panafricanisme des coups d'état et c'est pourquoi damay wax souvent il faut pas que président Diomaye Faye fàtte que même bu dee mook ñooñu mook euh, Ibrahima Ibrahim Traoré Goïta ñoo bokk génération mais il faut jamais que lui il oublie que moom dañ ko fal démocratiquement. mais justement c'est c'est mais mais justement c'est une affaire de génération. oui euh, Diomaye mën na wax ak euh, Ibrahim Traoré mën na wax ak Assimi Goïta mën na wax ak Mamadi Mamadi Doumbia. mais moom lu mu wax c'est une affaire de génération Diomaye mën moo gën a mën a wax ak ñoom. que Alassane Ouattara mais bien sûr lu mu war a wax ak ñoom xam nga luy luy devoir Diomaye. lu mu leen war a wax les hisser au niveau du Sénégal pas comme le veut Sonko nous rabaisser au niveau des États du Sahel et c'est ça la vérité parce que li may wax ni le régime militaire là c'est une petite intermède c'est comme de la musique entre deux émissions là on met de la musique on l'appelait intermède au Burkina semaine bi a eu un coup d'état manqué mais la deuxième vague démocratique va arriver kenn mënu dara parce que lu tax ñoom militaire ñi def coup d'état c'est quest ils disent que oui par exemple pour daaneel le président du Burkina il n'est pas efficace dans la lutte contre le terrorisme est-ce que Ibrahim Traoré a été plus efficace que Rosmar Kaboré non au Mali c'était la même au Mali c'est la même chose donc ceux qui fondent la liste de leur pouvoir va être détruit la première vague démocratique bi sur le continent c'est parti de la boule donc cause exogène mais la deuxième vague là les causes vont être endogènes ce sont les populations qui vont dire qu'ils ne veulent plus du régime militaire. Maintenant, ces gens-là, pour légitimer leur pouvoir, font de l'idéologie. Ce n'est pas des panafricanistes, ce n'est pas des souverainistes. Comme je dis, le souverainisme, ce n'est pas de passer de supplétif français à supplétif russe. Ce n'est pas de changer de maître blanc. Et ces gens-là, ce qu'ils ont fait, c'est changer de maître blanc. On fait partir les Français, on fait venir le souverainisme. Le souverainisme. la, Russie, euh, la, la Sénégal. Non, il a aucune chance. Xam nga lan mooy souverainisme. Pourquoi il a aucune chance? Xam nga lan mooy Mais il y a eu une, une, une rencontre entre les États africains et le, et le, et le, et le, et le gouvernement russe. Le Sénégal était représenté par le ministre de l'Intérieur. <laughs> Mais la Russie est un État. c'est un grand état d'ailleurs man yàgg ko wax ça contrairement ce que veulent nous faire croire les occidentaux les russes ne sont pas des barbares et quand tu vois la littérature russe Léon Tolstoï Dostoïevski en matière de science la Russie est un grand pays mais la Russie géo la géographie de son intérêt national la Russie estime qu'elle doit être présente en Afrique pour casser le monopole français mais donc est-ce que nous Africains y a pas de peur pour pour pour pour une menace russe la mooy souverainisme aujourd'hui li Sénégal def le 24 mars mais c'est ça le souverainisme Diomaye était en prison il est sorti il est parti aux élections les Sénégalais l'ont élu démocratiquement en 2000 j'étais rédacteur en chef de Walf tout le monde savait que Ablaye Abdou Diouf était le candidat et le choix de la France malgré ça les Sénégalais de façon souveraine ont eu Ablaye Wade et c'est ça le souverainisme donc

l'économie, la guerre par l'économie comme mode de régulation de leurs relations. Et c'est pourquoi l'Europe vient de connaître sa plus grande longue paix. Donc si le panafricanisme en Afrique doit se faire, il ne peut être qu'économique et démocratique. quand même, les Kémy les Nathalie Yamb, on sait, comme disent les communistes, on sait d'où ils parlent, on sait qui les paye, qui les finance. Et donc, le Sénégal, comme je dis, le président Bassirou Diomaye Faye, sa mission a elle tire maintenant. mais non mais moom elle elle elle écrit sur la dictée des Russes loolu ñëpp xam nañ ko mais moom elle l'assume elle écrit sur la dictée des Russes da nga mës a dégg mais ñoom Nathalie Abdou bi waa ji ne Mali bi ñu nee waa ji ne day yokk transition cinq ans lu ñu wax que baax na c'est-à-dire ñooñu mooy dëkk yu mel noonu mënuñ leen comparer ak Sénégal dëkk yu mel noonu mënuñ leen comparer ak Sénégal Sénégal nous sommes l'une des plus vieilles démocraties du continent.